Assalamualaikum mbokki Senegal. may delu di len ndokale ci wéru koor gi di ñaan yalla mu wacce jam ak salam ci biir réew mi ku ci wor ak sama mbokk yi nag na ngeen fexe ngeen woor may ñaan yàlla mu nekk koor bu jàmm eh, ma bëggoon waxtaan nag ak suñu ay mbokk yi nga xam ñoo ñu nekkal bitim réew ñi demoon fa pour jàng ji demoon fa pour utim alal ñu woowee leen diaspora te seen wàll ci réew mi ñëpp ràññee nañ ko ndax kuy mun mun indi ñaari junni milliards ci sa réew pour ndimbal rek kon kooku jar naa mët a taxaw donc li ma ci gëm rek mooy il faut que ñu xool ci suñu ay matuwaay lan leen di indil ci ay xaral yu bees surtout ci wàllu formalité administrative ma doomu Sénégal war a mun déplacé wu dëkk ba dëkk pour di uti ay passeport wala ay kayitu juddu doomam donc dinañ crée benn plateforme bu wóor pour lépp lu jëm ci seen i formalité administrative ba bu kayit bi paree moom mu mun ko jëli loolu mooy benn beneen bi nag mooy passeport ba ma gëm ni def ko jëlee ko juróomi at yóbbu ko fukki at da leen di dimbali ci lu bëri ci wàllu seen régularisation bu ñuy ut seen i kayit ci réew yi ñu leen yi leen dalal euh, beneen bi nag mooy wàllu guichet unique bi ma bëgg ci wàllu koom guichet unique boobu nag mooy tax ba bépp doomu Sénégal bi nekk bitim réew bu amee ñi mu lëkkalool pour ñëw indiwaat ay investissement ci réew mi moom mu jaare ci bunt boobu mais boobu moom dama ciy veiller personnellement ndax man maa koy évaluer sama bopp pour bañ ñu nax leen ni ma ciy veiller nag noonu lay veiller ci wàllum foncier mooy. doomu Sénégal bu nekk bitim réew accès au foncier man maa ci guichet unique bi ñuy teg évaluation yi dama koy def de façon périodique ndax yàgg nañ leen nax ci lu mel noonu donc loolu nag mu nekk benn réforme bu nga xam ne dama ci dama ci investir personnellement ndax dama bëggoon ku bëgg investir ci réewam mu def ko ci xel bu dal ma gëm ni tamit il faut que ñu mën respecter wante ci biir àdduna donc suñu ay njaboot yi nekk bitim réew du ñu nangu benn nit di leen noot ñu leen di seetaan donc damay imposer benn réciprocité bu ferme ci bépp réew bi nga xam ne respecté wul ak ak yelleefu doomu Sénégal képp ku fayeeku doomu Sénégal pour kooku am visa ci réewam na xam ni moom it njabootam buy dugg ci biir Sénégal il faut que moom it mu fay ci wàllu visa ma gën ni tamit nit ñi dinañ dem léeg-léeg yàlla ubbi leen bunt léeg-léeg nag ñu am ay xat-xat wala ñu am ay tolof-tolof ma gëm ni nag ku ci ndogal dal ci yoon bi mooy am nga néew bëggoon ko indiwaat te am nga am jafe-jafe pour indi ko wala nga am ku feebar mënoo ko dimbali wala nga toog sax bitim réew nga ne da ngaa bëgg ñibbisi waaye amoonoo ñibbisee du ma nangu ngay jëlaat beneen vulnérabilité di ko teg sa kaw donc benn aide spéciale au retour dina am ak nag gunge doomu Sénégal yi nga xam ne ci situation ndogal yu mel noonu dañuy soxla seen réew taxaw leen loolu yëpp rek li ñu ci séntu mooy gëmloo leen ni fépp fu ngeen rek seen réew dina nekk seen ginnaaw am na beneen bu nga xam ne tamit mooy réforme bi nga xam ne dinaa yokk wàllu importation véhicule mais loolu du ci waxtaan tey maa ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullah